donc loolu lañ fa nekkee. éliminé nañ yow moom yëgoon naa éliminé nañ ay boy Pastef yu bari yu ñu yóbbu woon seen kër. effectivement pour ñu dem toog yi fa en attendant. léegi nag lu ci gën a doy waar. Uh-huh. mooy man dañ ma dañ ma dañ ma sanctionné. Mm-hmm. ne man maa def mbir mi maa sàcc ordinateur eh? bi donc loolu amul sens. léegi ñu ne dañ may remplacer ki ñu ma ki ñu proposé pour mu remplacer ma. Mm-hmm. moom ñoo bokkoon décision d' affectation mois de euh, juin deux mille vingt trois. ba nga ñëw fii ñëw fii moom Nouakchott la waroon dem. ok mais moom ñoom Omar Samba Ba pour bëggoon lu neex Macky Sall ak ñooñu. Hmm. dañoo sosaloon booy bi parce que booy bi wa Casamance la. waaw waa Pastef Casamance waaw si si si. waaw ah. booy ñu éliminé woon ca ca ba. waaw effectivement léegi nag dañoo ne. booy xanaa sant euh, Joolaa la yoroon ñu santoon Koli ñoom. kii yoroon naa Sakho ak beneen booy. ah waay waay boobu defoon naa ci live. booy ñëpp ñu nekkoon Palais. di nekk ay boy casese wala amoon sant ay saaxoog ay ay sonkoog ay sant eh, séeréer ye sant joolaaye yooyu yëpp la Macky Sall buuboon tuuri ca xaj donc moom kon bokkoon na ci booy bi nag da cee bokkoon hmm. maanaam ñu jël ay renseignement jéroloo di ko topp suba guddi ak ngoon ñu def ay rapport ci moom ne booy bi Pastef la bokk te booy bi yorul carte Pastef non Samba Ba bi ci fa ne nii moo ko defoon ak paa yi Omar Samba Ba Babacar Alassane Ndao waaw léegi nag bi ñu defee loolu ñu sanctionné booy bi ñu maintenir ko sans affectation ñu ne ko demal sa kër toog hmm. bul dugg palais bul dugg affaire étrangère hmm. booy bi nekk fa muy métti ci moom mais nguur gi daa daanu rek automatiquement lendemain bi ñu woo ko ñu ne kaay liggéey si ah, moom la ñu yónni léegi mu remplacer pour léegi mu ñëw maanaam mu remplacer ma hmm. maanaam dëmb dañoo toroxaloon kee ba pare ñu indiwaat ko pour ñu toroxalaat keneen. Hmm. léegi loolu est-ce que loolu mën naa continuer. no mu ko ay màgget yi nga xamante ne depuis. non dañ leen di raxas waaye pale pale du fa am dafa salte moom. depuis pale dafa salte. ñu ngi foofu ba tey. Hmm. di toroxal yi. ay paa yu màgget nag. ay paa yu màgget xobidaas. Hmm. bon am benn information bi wax président bi. la semaine passée eh, Sakho Koli eh, Diatta Sonko Diédhiou ñëpp lañ dàqoon ñoom ñëpp. wala ñu mettre la au frigo. léegi mooy booy ndaw la semaine passée. Mm-hmm. président bi dafa rendre visite direction euh, <laughs> dafa demoon direction générale du chiffre. Mm-hmm. Euh, président mm. Diomaye. merci président mm-hmm. Diomaye. dafa jékki-jékki ay quatorze heures. woowul kenn waxul kenn dara mu dem bureau Omar Samba Ba. mu ne nañ dem ma xooli chiffre. moom buy dégg mbir mi dina xam. biñ demee chiffre mu taxaw lu yàgg ci couloir bi. directeur général bi génnul. mooy paa bi. paa bi waaw paa rek la fa nekkee nag. nelaw rek la fa nekkee. ñu toog bon bi ñu taxee sukulaar ba mu yàgg Omar Samba Ba xam naa mu déplané mu ne nañ dem si si centre d' bi foofu day am ay jeunes tout le temps. bu ñu fa demee nag après jékki-jékki paa yi génn nag ñëw fa. mais xam naa président bi comprendre mais juste pour pour dire au président. que gars dañ doon nelaw seen bureau yi heure boobu moo tax nga ñëw taxawlu yàgg ci couloir bi. génnuñu. donc ñoom Omar Samba Ba waxu ko. Omar Samba Ba du ko ko wax. mukk waaw parce que Omar Samba Ba moom mooy jàppal kooku. tànk waaw ay lobby la paa yi ñoom ñoom fa yàgg de. nag ñoom ñëpp si xaj lañ jëm. léegi nag léegi nag. Mm. Mm. nag ñoom. Mm. ñoo fa nekk di toroxal ay xale ay jeunes yu am avenir yu am carrière. def concours defuñ dara ñun defuñu politique man du ma politicien du ma activiste. mais c'est juste lii da koo yàgg def. c'est la énième fois. dafa yàgg toroxal ay nit donc donc donc ñoom da malgré tout. ñoom dañoo bëgg nga ñëw Sénégal. waaw léegi nag. Hmm. comme que ma xool dëmb. Hmm. dëmb la ma ambassadeur bi woo. Hmm. mu ne ma waa Dakar dañ ko jox ay instruction que man naa cessé service naa tëj bureau bi. bureau bi sama bureau delloo leen caabi yi. comme ça. comme ça ma ne ambassadeur nag ma ne ko lii c'est contraire à la réglementation du chiffre. gis naa kayit yi. ma ma ne ko chiffre dafa am obligation de passation de service. de service waay. ma ne ko nag. am na kii bi mun naa ay saay saay lañu am na lettre bi am na lettre bi parce que tamit ma ne ko que gis naa mais il faut ñu euh, un peu ñu liiral leen ko injustice bu mu nar a subir moom it comme ni ñuy wax naan ay booy sonko yi lañ ñi ñi ñi ñi leen di jéem a traqué pour jéem leen dàq parce que mi ngi nii léegi nag ah. vous demande dama me faire parvenir si ce n'est pas déjà fait attestation de cessation de service et de paiement et de paiement mm-hmm. Ah, donc ñoom fayatuñ la léegi bandi lañ def yëf yëfu bandi mm-hmm. donc dañ la bëgg a ñëw delloo la Sénégal fayuñu la arrêté service nii comme ça mais dañ ne loo règlement yi def ne euh, paiement des agents en service dans vos postes respectifs rappelés pour fin de séjour réglementaire à l'exception mm-hmm. des payeurs chiffreurs tenu par l'obligation de passation de service. Merci. Donc, mënuñu la yóbbu. te sans sa remplaçant ñëw pour ñu def donc bu ñu ko defee yëpp bandi la ñu def. yëpp wëyu la ñu def. léegi nag ko bàyyee saay saay te xeex lii moo tax nit yi dee. nit nit yi seen bakkan rot nit yi nekk seen bakk ñuy taal suñu kër yi ndax lii injustice bi amoon moo tax tey jii nit yi rey ci seen bopp. donc ñaanuñu yàlla ñu woon yàlla ni dinañ toog di xeexaat ba encore nit yi affaire banditisme d'état boobu di fi amaat ba léegi. donc lii il faut que Sonko yëg ko il faut que le président Diomaye yëg ko parce que yow amuñu droit di la rappeler urgemment nga ñëw sans am passation de service parce que loolu mooy loi bi loolu mooy règlement bi. merci léegi nag ba bàyyi la nga continuer léegi nag loolu li ma si bañ. Mhm. parce que pas chiffres yi ay saay-saay lañ ay band lañ. man sama bureau ay documents confidentiels secret ce que ñoo fa nekk. ñoo lu ñu yóbbu dafa garaaw sax. tampon bi. tampon bi signature bi euh, euh, euh, kii tampon bi ñuy date bi. tout ordinateur mais nii dafa garaaw. merci. léegi nag le fait que ñu ne ma naa tëj bureau bi dafa leen caabi. Mm. te passé wu ma service damay attirer attention sénégalais pour ëllëg. Mm. ñoom mun nañ gën a sos comme ni ñu ma sosalee nee ma. Mm. maa sàcc ordinateur bi. mën nañ mun nañ sos ëllëg ne si bureau bi remplaçant bi. Mm-hmm. sama remplaçant bi bu mu ñëwee. waaw maanaam fekk fa fekk fa. Euh, dara wala soit. mu am mën nañ la sosal waaw mën nañ la parce que dañ la éliminer avant kooku di ñëw. merci donc mun nañ comploter encore. merci nuñ comploter ki lay remplacer sax. merci waaw voilà merci léegi